wasalaatu wasalaam ala rasuli al amin sayidina muhammad wa ala wa ashaabihi dawi ridwani wa tamkin mbokki jullit yi yi fi teew jóge ci biir réew mi ak jóge ci bitim réew ak jóge ci gox yu wuute ñépp ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam leen dalal fii ci kokki ñu fas yéene yëkkati kàddu koo xamante ni xëy na baaxoo nañ ko di yëkkati waaye du dara lu dul fàttali ndax bari na mbokk yu bari yuy sàkku kàddu gu mel noonu ndax bari na ñu fi ñëw te bu ñu mësuñu ñëw te bu ñu sañoon bu ñuy dem ñu am ay information ci daara ji information yooyu nag moom lañ leen bëgg a tënkal ci ay minutes yu gàtt gàtt kenn ku nekk xam na ni daaray kokki ñu ngi ko sanc 1939 guddi gàmmu la sëriñ ahmadul kabir mbay gën kaa xam ci maam cheikh mbay nekkoon turandoo ci sëriñ ahmadul saxiir nekkoon sëriñam woo ko guddi gàmmu ni ko yow kaay ñëw dem kokki gàmm gi bàyyi bàyyi gàmm gi ak lu aju ci gàmm gi te dem kokki ku ñëw nga jàngal ko ngir yàlla guddi gàmm 1939 la sëñ Ahmad Saxiir sëñ Ahmad Saxiir nee na bi mu fi ñëwee ak bi deuxième guerre mondiale di déclenché ñaari weer la ak yu teg tuuti donc kon loolu li muy tekki mooy ni daara ji ci ay ci ab jamono bu méttee méttee métti ci la taxaw duñ ñëw ci xëy na détaillé ndax information yi rek la ñuy joxe beneen bi daaray kokki daara la joo xamante ni dafa am lu ko tax a jóg li ko tax a jóg muy ay objectif bi ci njëkk mooy mu fexe ba li ñuy tudde njàngum alquran mu gën a jëm ca kanam te gën a tasaaroo loolu vision la boo xamante ni Serigne Ahmadou Sakhir amoon na ko ndax doon na wax ñaan naa yàlla lii ñuy jàng fii ci kokki ñu dem ba koy jàng fépp ci àdduna bi donc loolu benn la ci objectif yi beneen bi mooy ñu fexe ba li ñuy tudde ñàkk a mën a liir ak ñàkk a mën a jàng mu jeex fexe ba jàngal nit ñi ba bu ñu tiimee dara man kaa xam li ñuy tuddee al ummiya ci arab di analphabétisme loolu bokk na ci li nga xamante ni moom la daara ji di xeex beneen bi mooy mu participer ci tabax réew mi tabax ay situation ay citoyen modèle yoo xamante ni bu ñu jugee ci daara ji dañuy nekk ñoo xamante ni dañuy participer ci lépp loo xamante ni yokkute la ci réew mi yokkute la ci askan wi daf ko daan wax da daan wax ni ah su ma sañoon soo ma indilee sa doom yow way jur wi dama lay fay yow way jur wu góor wi fay way jur wu jigéen wi fay xale bi jàngal ko yar ko ba mu amal bokkam boppam njariñ amal ay mbokkam njariñ amal réewam njariñ mu dem ma dem yàlla buñ gisanteeti ba yowmal xiyaamati ñu ni ko loolu loo ci bëgg mu ni mu am ridwanullahi al akbar yàlla na ko yàlla defal beneen bi daara kokki dafa am lu mu jagoo li mu jagoo bi ci jiitu mooy service yi nga xamante ni moo nekk ci daara ji ak nombre bi li muy rëy rëy lépp gratuite la muy njàng mi muy dëkkuwaay bi muy faju mi muy nekkin wi muy lekk gi ak yépp yoo xamante ni dafa aju ci nekk xale xale bi amul benn dërëm boo xamante ni way jur wi da koy fay beneen bi li ñuy tuddee démocratie ci wàllu njàngale fexe ba jàngal ñépp saa ngay se beddi kenn walla keneen ma ndax moom dafa amoon gëm-gëm ni ku ñu defar nga baax ku ñu defar nga baax du caagee ni maanaam li li ñuy tudde doomu soxna moom daf ni li ñuy tudd doomu soxna moom lim gëm lim gëm mooy ku ñu defar waajal la préparer la nga nekk koo xamante ni kuy am njariñ la moo tax fii xàmmewul naar bi xàmmewul pël bi xàmmewul joolaa bi xàmmewul saraxule bi xàmmewul kenn ki noonu foo mënti bokk moo xam murit nga moo xam xaadir nga moo xam laayin nga moo xam tiijaan nga moo xam loo mënti doon boo fi ñëwee lim séq ak yow mooy jàngal la alquran yar la ci li nga xamante ni mooy ay principe l'islam bàyyi la nga dem loo nekk nag moom yoonam nekku ca beneen bi mooy daaray ko kenn ku nekk bari na ñoo xamante ni dañuy laaj ku fi bëgg a ñëw noo fi ñëwee ki fi bëgg a ñëw pour mu ñëw fi xale bi lum néew néew na am juróom-ñaari at lum néew néew na am juróom-ñaari at ndax fii daanaka quartier militaire la te xale bi bu fi ñëwee war naa mën a am ak euh, matuk mën a defal yenn yi boppam euh, beneen bi mooy na nekk ku wér na wér physiquement waaye na wér tamit mentalement na xel mi wër wér na yaram bi tamit wér beneen bi mooy na am accordu daara ji accord boobu moo xam daka am par téléphone wala par bind wala moom mu ñëw wax ak daara ji beneen bi mooy bu fi xale bi ñëwee daara ji lim tër comme ay réglement mu tënku ci way jur yu tënku ci moom mu tënku ci loolu mooy sart yi nga xamante ni moo aji balaa moo ñëw na nawik am na date boo xamante ni ci la daara ji di jël xale yi liñ baaxoo woon mooy di ko def premier janvier mais comme ndajem ndaje ndaje mi léegi dafa jege premier janvier moo tax bu ñu génnee ci ndaje mi incha allah commission bi yor loolu danañ toog tënk jàpp dat dat boobu buñ ko jàppee incha allah mbokk yëpp danañ ko yëg beneen bi mooy xale bi nga xamante ni dafa ñëw fii ci daara ji daara ji nan lay jaare ak moom ba li mu bëgg a def ci moom mu def ko daara ji fii base bi mooy njàngum alquran boo fi ñëwee li ñuy jéem a njëkk a def ci yow mooy jàngal la alquran ba nga man ko loo ci teg doog ko teg njàngum alquran moomu xale bi programme bisam mooy diggante vendredi ginnaaw bu ñu jullee juma ba noppi ba àllarba ci midi heure yi muy jàng mooy 8 ba midi 3 ba 18 heures bu ko daggee daaw julli ji taksan bu jullee gee ñi sori jàng waxtu buñ demee ba fajar des waxtu ak genn wàll ñu daal di jug jàng loolu mooy heure yi nga xamante ni moom la xale yi di jàng daara ji nag malgré difficulté yi nga xamante ni mu ngi koy dund ndax euh, buñ xoolee ci wàllu dund bi mën nañoo wax ni daara ji bis bu nekk day sóor une tonne quatre ci ceeb ay facture électricité am ci deux mois yi nekk day dem ay cinq million beneen bi mooy euh, kenn ku nekk xam na ni loolu ay jafeñ-jafeñ la maanaam dëkkuwaay yi matul niki noonu tamit dund gi tamit léeg-léeg mu am ay jafeñ-jafeñ waaye ànd ak loolu daara ji mu ngi joxe ay résultat ànd ak loolu mu ngi joxe ay résultat ndax ci dernier recensement yi ñu def mën nañoo wax ni ci at mii nga xamante ni moom lañ moom la ñuy bëgg a génn muy deux mille vingt deux lu toll ci deux cent soixante dix huit personnes tari nañ fi alquran lu toll ci deux cent soixante dix huit personnes tari nañ fi alquran ñooñu tari alquran ñoom ñooy ñi nga xamante ni ñooy dem ci enseignement général bi enseignement général bi niñ ko séddalee mooy primaire la ak moyen secondaire. primaire bi xale bi mokkal alquran bu fa demee ñeenti at la fay def man na faa def ñetti at man na faa def ñaari at mu ngi aju ci euh, ay am xelam bu ci jógee dem ci euh, moyen bi def ko 3 ans ndax sixième cinquième benn étape la koy def bu ci jógee dem ci cycle secondaire bi def ko trois ans léegi nag bu demee ci cycle secondaire bi am na ay possibilités yu bari mën na def dem comme ci série scientifique yi aussi mën na dem comme série littéraire yi Euh, résultat yi nga xamante ni moo mujj ci examen yi génn bi njëkk mooy lu jëm ci wàllu CFEE daara ji enregistré na ci taux de réussite bu 92 pour cent bu dee BFEM français comme euh, BFEM franco arabe BFEM arabe enregistré na ci 100 pour cent bu dee bac arabe moo xam euh, série s la moo xam série LR la moo xam.